Fafa TV. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa barakaatu di am mbégte lool ñëw ak batey ba tey ci yéggale li dooroon ci charx muqaddimat risalat ibni abi zeyd al qayrawaani sara muqaddima bi nga xam ne ni moom la ibnu abi zeyd jiital ci téereem bii di euh, risaala téere bi di fiq ci li ëpp solo ci li ko tax a jóg waaye muqaddima bi comme niñ ko waxee woon di leeral ay bunt yu am ama am solo ci wàllu pas-pas ba waxoon nañ ni muqaddima bi li muy gàtt gàtt lu ma téeméeri masalaa ngi fi boo ko detaayee yoo xam ne nii yu pas-pas la kon muy muqaddima bu am solo boo xam ne nii ëpp nay ëpp nay tëb te dañoo miine woon léegoo léeg daanañ jàngale téere bii di risaala di ko tëb te boroom mi ko taalif moom su sañoon bu ñu koy jàng ñu jàngaale ko ndax laltaay la ci la waxee li tax mu tëx mu taalif téere bi leeral na ci lu baree baree bari loo xam ne ëppoon naa umpale en tant que jàngkatu xam-xam rawatina en tant en tant que ab bu jàng risaala masala yu am solo toll nii nekk ci téere bi mu sañ a wax jàng naa risaala te jàng ko te te jàngul masala yooyu kon jàng am solo la kon ba tey ñu ngi woon ci ndortali mi ngi sàkk mi gannaaw bam sante yàlla sàkku ak ndimbal ci suñu borom subhanahu wa taala bi li bi sallallahu alayhi wa sallam wax li ko tax taalif téere bi te mooy sàkk guñ ko sàkk woon ci moom ci biir càkkuteef googu mu ciy leeralaale lu am solo di encouragé waale ki ko sàkku ci moom di ko wax ne ko def nga lu am solo ndax bëgg nga ma taalifal la téere boo xam ne nee nga dangaa bëgg say gone di ko jàng waaye bu soobee yàlla danaa leen indil loo xam ne ni mën nañ cee jëriñu mën nañ cee yokkoo dana baax ci ñoom lool buñ ko jàngee moo tax ma fekk la ci sa càkkutéef googu di bind téere bi di sàkku yàlla dimbale ma te sàkku ci piyaabo yàlla rekk kon foofu la tolloon waaye ba tey mi ngi ci di ko leeralal am solo bi liggéeyam moom moomu sàkku ci moom téere bi am solo waaye am solo bu jàngal ay xale fiq jàngal leen pas-pas am solo ba tey mu ne waalam na nga xam na yow mi nga xam ne nii yaa sàkku ci man ma bindal sa gone yii téere buy wax li am solo te war ci mbiri diine ak mbiri fiq waaye waalam na nga xam it yow miy jàng téere bi te nekk taalib ilm nekk ku sàkku xam-xam waalam ni ñun ñëpp xaj nañ ci almuxaatabu bihi ibtidaan mooy maxris mi mi mi mi mi mi tax mu taalif téere bi waaye almuxaatabuuna bihi tabaan mooy ñun ñëpp ñun ñi nga xam ne nii dañuy jàng feq walla dañuy jàng risalaam bii dugg nañ ci biir waalam na nga xam yow moom ak yow miy jàng sama téere bi anna xayral qulubi naka xol bi gën ci xol yi awaaha mooy ba ca gën a mën a làmboolil xayri ñeel aw yiw aw aaha wiaa mooy ndab wiaa tuddee nañ ko ndab ndax day làmboo dara xol ci la terkiis jàngee dañ gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne ala inna fi ljasadi mudghatan ida saluhat saluha aljasadu kulluhu ida fasidat fasida aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalb xol moo am solo lool lool am solo bu tol ni daanaka gindeeku jaam bi fa lay jaare innaha la taamal absaaru walakin taamal qulubu allati fi suduri al qulub kon xol mooy mëtëru doomu aadama moo ëpp solo ci membre yi yaramam bi mu ne ko xol boobu nag yow jànk bi nanga xam ne xol ba ca gën mooy xol ba ca ba ca ba ca mën a gën a làmboo aw yiw mën a duy mën a taataan mën a def aw yi waaw loolu de am na solo mu ne la waaw waaye du xol yépp nag ñoo mën a jëlu yiw wala du xol yépp la jëlu yiw di yomb ci ñoom mu ne moo tax ma taxal la ci wa arjal qulubi lil xayri xol yi nga xam ne nii moom lañ gën a xol ñu gën a yaakaar ci xol yi ne moo mën a amul yiw maa mooy xol boo xam ne lam yasbiq jiituwul ilayhi jëm ci moom asharru aw ay xol boo xam ne nii aw ay jiituwu ca ab safaan charru nag mooy muqaabilul xayri mooy jàkkaarloog aw yiw moo wala fi buñ bëggee maanaam yaatu lool sax dañ naan ab safaan safaan moom lu bon xeet yu bon yépp a ngi ci xol bu lu bon jiituwul nee na moo moom lañ gën a yaakaar ne moo mën a defu yiw loolu moom neex naa dégg ndax xol moom comme ak bagaan la walla ndab la boo xam ne dañ ciy def def fu dara newul moo gën a yomb def fu dara ne def foo xam ne nii la nga def ak la nga ca fekk ñoo nuroo moo gën a mu nga fi def loo ngay def foo xam ne nii ab safaan dafa fekk safaanu la nga fay def nga xam ne faaw da ngay dindi ba noppi door a def te comme ay gone ngay jàngal yow gone yooyu seen xol yi ñaare ci fitra la nekk ngay xam fi ibnu abi zayd di waxee seen xol ya kon jàngal leen pas-pas bu baax ak jàngal leen fiq bu set dafa am solo ndax seen xol ya ab safaan jiitoo gu ca bu ca xam-xam bii nga sàkku ci man ma bind ko jiitoo rek incha allah danañ am yaakaar ne danañ yéwén xayrul qulubi nee na awaaha lil xayri wa arjal qulubi lil xayri ma lam yasbiqi charru ilayhi lu mawludin yuladu ala al fitra sutura boobu xayru la ndax safaanoo wut ak moom ba tax na kooku boo ñëwee di ko jàngal lu baax ko jàngal diine ko jàngal alxuraan day yomb day jàppandi da gis ci kanam mu ne la taalum fi sigar nee ñu sax ka naqs fi xajar gone njëkkiil ci moom laataa dara di xew jàngal ko lu baax boo ko sàgganee na ah boo màggee dana ko jàng danga koy indil jafe-jafe li ñu koy indilee jafe-jafe mooy leneen dana jiitu lu dul lu baax la ci waroon a jiitu ni ci xol ba su demee ba xàmmee moom pour mu dindi safaan boobu def ci lu baax loolu ab amaliya lay doon maanaam ab liggéey la parce que coono boobu nag waajur ñoo ko mën a fegal seeni doom ñu tollee ci jàng nekk ay gone ñu jàngal leen ak njub comme nii abu zeydin ibn abi zeydin di def jàngal leen pas-pas bu baax jàngal leen fiq bu set aw yiw xanaa jiitu na boobaa ci seen dënn yi mu ne wa awlaa te li gën a yeyoo maa loo xam ne on yo sonne woof na annasixuuna way laay biri sonne woo nañ bihi ci moom wa raxiba tem xemem ar raxibuna way xemem yi fii ajrihi ca yiwam xam nga loolu mooy lan li laayekatu biir yi li ëpp solo ci luy laayekatu biir yi sonnewoo li ëpp ci li ñu bëgg lu baax bëgg la ci gën a yey mooy isaalul xayri ila qulubi awlaadil muminina loolu bu la neexee nga ne mooy xayrukum man taallama alqurana wa wa allamahu jàngal gone yi alquran nee na way laay biir yi li gën a yeewoo luñ sonne ñi bëgg lu baax li gën a yeewoo ci lu baax lañ bëgg mooy fexe ba aw yiw yegg ci xolu doomi jullit ñi xayr rek lay wax moom ibnu abi zeyd xayral qulubi awaaha lil xayri arjal qulubi lil xayri isaalul xayri ila qulubi awlaadil muminina yenn sharaa yi ne moom day tënk kuy tënk nag da ngay jël ay ibarat jaamia ibarat jumliya loo amante xi di baat yoo xam ne nii ay ay lay doon maanaam lu bari day àttan lu bari aw yiw moom buñ ko waxee ga moo ci jiitu ndax moom la sëriñ daara bi sàkku ci moom mu taalif téere bi di yittewoo waaye jàngal leen xam-xamu feq jàngal leen pas-pas bu baax mu ngi ci biir kon nee na yow li ngay def yow moomu te mooy fexe ba aw yiw alxuraan jooju ngay jàngale aw yiw pas-pas bii nga bëgg ma jàngal ko gone aw yiw feq bii may def ci risaala yëgg ci xoolu gone yooyu loolu ngay def nee na ñi bëgg lu baax ñëpp gis nañ ne moo gën a yeewoo lu ñu war a def maanaam kenn gënu la ab liggéey yow kenn gënu ab liggéey loolu encouragé na bu baax a baax a baax a baax jàngalekatu alxuraan yi jàngalekatu xam-xam yi te koy jàngal ay gone yenn chara yi mën tafsil na détaillé ñu ngi ne boo gisee ibnu abi zeydin di soññ sëriñ daara bi di ko di ko ñaax di ko yaakaarloo di ko encouragé daa si lool ci jamono yooyu ak yeneen yu jamono yooyu ñàkkal fayda ku yittewoo jàngal ay gone nga xam ne ku amul liggéey koy def wala ku ñàkk programme wala yu demee noonu daanañ ko wax ne ah kuy kuy waaja ba nee na ba muy xas sëriñ daala ba dañu kuy xëy ci gone di gont ci jigéen man gis ma ko la gën a ñàkk bopp loolu ŋàññi la waaye koo ko xamul ñu mel noonu ñooñu di wax safaan yooyu lay tontuwaale ne yow nit li nga yittewoo te mooy yeggale aw yiw ci xolu doomi jullit ñi amul ku yittewoo lu ko gën wa awla ma uniya bihi nasihuna wa ragiba fi ajrihi raghibuna isaalul xayri ila qulubi awlaadil muminina ndax lan li yar saxa ndax mu sax fiiha ca xol ya lu baax sax ca xoli xale ya ba kenn du leen mën a yàq ba tegaat ci lu baax yomb wa tanbihum ak yee leen ñoom xale yooyu ala maalimi diyaana ci màndarga yi diine ji xammikaay yi nga xam ne ñooy maalim maalam buñ ko wax ci arab cosaanam mooy xamikaay buñ def ci barab ba tax ñu xam barab ba mën naa doon lu ne mën naa doon ab montagne mën naa doon ab luñ fa samp waaye xammikaay boo xam ne daal boo gis xam ne lee fee lee lee fa ne moo wane dafa ne loolu mooy maalam diine nag maalimu diyaana ku ne xam ne ne li solo lépp ci diine dugg na ci biir arkaanu al iman ñi ngi ci ay arkaanul islaam ñi ngi ci wa ma baynahuma mooy usulu diini wa ci ñi ko bëgg a ci ñi ko xaaj ñi xaaj diine def ko ay usulu ki furuu usulu diini te mooy ponk yu mag yi nga xam ne ñoo ŋànk pas-pas ak furuu yi nga xam ne ci ñooy attey fiq yi ñuy jàng ci téere fiq yi yooyu ñooy màndarga yi diine ñuy xàmmee diine nee jàngal gone yi ngir loolu sax ci seen xol yi wax du di sharia ak limite yi sharia yi baatu xudud dafay jëfandikoo lu bare tënku lay lay junju fi ñu la yem leloo fi ñu la fi ñu yemloo nga yem fa li yuraadu ngir ñu tàggat leen alayha ca yooya maalim ak yooya xuduud tarwid rawada yu rawadu tarwidan muy tàggat riyaada di firi sport ci la jógee tàggat yaram li raawadu ngir ñu tàggatu te tarawadu alayha ba tax la buñ màggee du leen jafe tàggatu wa ma alayhim ak la leen war ñoom gone yooya la war an taxtaqidoo mu fas ko qulubuhum seen xol yi min diini ci diine daa am loo xam ne nii seenug limaan balaa mat dañ koy fas ci seeni xol loolu faw ñu tàggat leen ci ca ba ñuy gone kon loolu tax moom mu tàmbalee lii ci usulu diin am na ponk limaan yoo xam ne nii pour diine ji jub limaan ji mat faw xale bi ñu jàngal ko mu fas ko ci xolam muy gone wata amala mu jëfee it jawaarixahum seeni cër bi ci moom li ci seen xol war a fas takaalif yi takaalif yi mooy togg yi ñu suñu borom togg yi suñu borom togg sas yi ñu sas yenn yi da ko sas xol mu war koo fas mu aju ci ay yéene junjoon na ko ci gannaaw yéen yi da ko sas ay cër ñu war koo def yim fas xol ñu war koo fas mooy pas-pas yi mooy jiitu day ne ci nit ki mu jàpp ko xam ne yàlla mooy kenn xam ne yàlla amul ndendanoo amul nawle amul jabar amul doom amul nuroowaale dit bokkaale di ko ñeel xam ne yàlla am na ay asmaul xusna am na ay sifaat ola xam ne yàlla moom rek moo yor kàttan gu ñu boyal gi xam ne yàlla moo moom jàng xam ne yàlla mooy dogal xam ne yooyu nga xam ne ay paspas la ñu war a fas ci xolam mu ne fa deng way fa mu door faa di julli di woor yooyu nga xam ne moom ay cëram a koy def yooyu ay togg la kon ay takaalif xalbiya la yoo xam ne dañ koo togg xol yi xol yi war koo fas boole koog nag cër yi di jëf lawaasim yooyee muxtabayaat yi loole ndax ku gëm yàlla gëm nga ca war gëm-gëm yellool lu ne la yàllaa ko diggalee nga war koo def ci say cër nga war caa taxaw ndax boo ko gëmee da nga ko war a gëmee da ko bëgg boo ko bëggee da ko topp toppam yooyu nag topp ko mooy wéye ay ndigalam bàyyi ay tereem axkaam yi yëpp daal di dugg ci biir axkaam sharci yeeg furoo yi fa innahu naka moom kat ndaxte kat ruwiya netti leef na da koo def mabni lil majhul aw mabni lima lam yusamma qailuhu ñu jàng naxu binaa lil majhul lahu akthar min garab léeg-léeg fi'lu ji da nga ko tabax tabaxin woo xam ne nii tabaxinu luñ tuddul faa'il ji la ngir li xaajatin fi nafsi yaqub ngir loolu ci jublu yow benn da ngaa xamul ka def jëf ji nga ne defeef na wala xam nga ko waaye danga am loo wund ca ñàkk koo xamle wala ñàkk koo tudd ba tey nga ne defeetu def na binaa lil fekk yow mii binaa lil majhul xam nga ki def def na binaa lil majhul it fekk li ngay binaa lil majhul dangaa xamul bëggoo juum jëleef jëleef jël nañ fi ay dàll jëleef na fi nangam nee nañ xamoo ki wax wala sax xam nga ko waaye ko bañ a indil problème wala da koo bañ a wax ñu koy gisee nee na wala daal yaa xam nga ne nee nañ ba tey kon binaa li majhul moom lahu akthar min min garab la wax moom ala kulli xaal mi ngi tàmbalee indi kon wax ju dul waxam risaala bëri na ay xadiis yonent bi sallallahu alayhi ak i aakaar ñoom niñ daan yaxalee yaxal mooy bind matt duñu duñu duñu yittewoo détaillé ak tey tuxal yi ñuy indi ci seen téere yi léeg-léeg maanaamaa leen di ñor wëlis ñuy sardu ñuy ñuy ñuy ñuy boyal ab sanat naan diw nee ma diw nee ma di di waaye day wax lañ wax rek ndax xam ne ne lañ wax wax ji am na njariñ nga newu ca te bu ko aska néewu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala aska néewu ko kenn yow wax ji xoolal ba xam yenul maanaa wala yenul maanaa nga jël ko mbaa nga ñàkk koo jël ka ko wax sax yittiinu ko moom ibn abzid ci boppam matn yi tabiatul matn àndut ak ngay ngay ngay ñim ñàkk a àndeeg tafsil noonu la ñàkk a ngay ngay isnaad moo waa ji isnaadu loox benn xadis ne la saaba tàngam moo ko nett li jëlee ko ci diw diw ko diw wala diw sàmm nga ko nett li jëlee ko ci diw jëlee ko ci diw ba mu àgg saxaaba ba mu àgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teewul am na ku ko ko defal euh, bu ñuy tudd téere yi xidmaal risaala borom xam-xam yi xidmaal risaala danañ tudd al abhari abubakar al abhari ponkal la ci ponkali ngir maalik nee na sax bu ñu nee al sheykhaani ngir mi daa am ay ay mustalahaat yow de bu ñu nee ak cheikhaan ci xadis ngay jàpp ne mooy al al wa muslim ne cheikhaan yi ngay jàng ci rawaahu cheikhaan siira ñenn ñee na bu ñu ci taarix wala ci siira ñu ngi ci Abubakar ak Omar benn bindkat bind téere boo mu ngi ko tuddee ak cheikhaan yi boo ba boo defee Buxaari Muslim lay ci jublu da juum moom Abubakar wa Omar la ci jublu faaw si ne moom ci tuddee ak Cheikhaani la ko tuddee faaw am nañ seen Cheikhaani boo xam ne ñoom waa suñ ko waxee ñoom xam nañ ñu ci jublu ñaari ñaari ñaari sëriñ yi ñooñu ay ponkal la kenn ki mooy suñu waa ji Ibnu Abi mii ki ci des mooy Abhari mii nga xam ne moo isnaat risaala. moo tax nee nañ téeram boobu ñu wax masaalikul jalaala wala maslakul jalaala wala maslakul dilaala te ñoo werante ci tur bi ñen neen masaalikul jilaala jalaala fathil jiim jilaal ba xorom wala maslakul jalaala ifraat maslak bi wala maslakul dalaala dalaal bi firi tegtal dalaala moom musalaf la bu neexee nga ne dalaala bu neexee nga ne dilaala bu neexee dulaala musalaf nee ñu maslakul dalaala moomu wala maslakul jalaala wala masaalikul jalaala ku ci jotoon gis xam-xam ndax ñaari ñaari ñaari sëriñ ñoo ko taalif ak cheikhaani ñoo ko taalif ki taalif ni bi mooy ibnu abi zayd abu bakar al abhari moo moo isnaad daa nee na ñeenti junniy masala la risaala ci boole muqaddima ñi ko tarjamal nee na ñeenti junni masala ne masala bu ne danaa ko utal cosaan danaa ko utal dalil isnaat ko ba mu àgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ba mu àgg ci saxaaba yi taabi yi du ma la laal waaye ma al asaf téere bi yaakaaruma ne jàppandi na ndax ku tarjamaal abhari tudd nga ko ñi tarjamaal ibnu abi zeydin ñu bari sax tudd nañ ko tarjamaal al abhari ci boppam it tudd nañ ko ndax abhari sorewul ak ibnu abi zayd abhari ci xan raabe la dul ay trois cent soixante-dix-huit xam soixante-dix-neuf bor yooyu la sorewut ak jamono nante naag ibnu abi zayd moo tax dañ ne téeréem boobu ko gisoon ndax moom dañoo bokk jamono ñoom ñaar di ñaari kàngam kii taalif ab matnu kii topp matnu bi toppaat ko benn par benn di ko utal ay dalil masala ñeenti junni masala yi masala bu ne dana fexe ba indi la xadis bu daamu masala ko daamu كثير ومنصرة مع الأسف يعد من المفقود من تراثنا الغني kon ak cheykhaani mooy mooy am nañ muhammadaani ba tey ñu istidraat foofu tuuti ngir mi am na cheykhaani am na muhammadaani am na qaadiyaani comme ngir Malik dafa tasaaroo fii seen mustalahaat yi cheykhaani mooy kan ibnu abi zeyd ak al abhari al muhammadaani ñaari muhammad yi ñu bu ñu waxee almuhammadaan ci ngir mi bul sonn bu ne lii da xaalahul muhammadaan ndax léeg-léeg eh, ngir mi dañuy nisbatu aqwaal nisbatu aqwaal mooy wax yi ci ngir mi ñu askanelee ko ko ko wax ci kàngami ngir mi loolu ngir yépp a koy def ndax xam mag yi ngir mi dana tax nga xam wax ji ñu askanelee ngér mi am na doole sëxëñ na wala am na am na am na taxawaay ci ngér mi wala waxi xala xala la dëgërul lool wala lu ci yàggul la loolu tax nisbatul aqwaal ci madhab day am solo ndax mi ngi dimbale taalibul ilmi bi kii sàkku xam-xam mu bañ a jiiñ ngér mi lu ngér waxul am na benn waaye bu taalib benn téere ñu ko tuddee te yi ñuy faral di juum ci askanale ay wax ñu ko waxul nisbatu aqwaal ku jàng fiq gi bidaayatu mujtahid di nga gis nañ ciy sonnee am na ñu ko topp di ko dingat ci yenn lu am solo la tawsiq la kon Cheikhaani mooy ibnu abi Zayd al abhari al muhammadaani mooy muhammad ibnu Suxnuun ak muhammad ibnul Mawaaz ñaari konk lañ ko al muhammadaani nañ al qaadiyaani sax al qaadiyaani ñaari xaali yi xaadi benn moom xam nga ko moom mooy alxaadi almaliki Abdul Wahab bi lu nasr moom la laa lay wax ci dars bu njëkk ba ne la moom la moom la abi zayd mii defaloon teraanga ba ko jamono sonalee moom xaadi Abdul Wahab ku borom xam-xam la waaye dafa amul dafa néewoon doole lool lool abi zayd mii di borom xam-xam ba noppi am dara mu mu mu xettali ko ci ay jafe-jafe hada abdul wahab kontaan ne ah kii nag moom hada rajulun tajibu alayna mukafaatuhu kii kat war naa ko delloo njukkal daal di sharxu risala hada abdul wahab boobu mooy benn qaadi bi ñeen mooy alqaadi abul xasan ibnu alqassaar ñoom ñaar lañ tuddee alqaadi yaani man ponkal la waaye ñeneen ñeneen buñ buñ buñ buñ booyalee alqaadi yi ci fiq ci ngirum Maalik ku ci jublu xaadu Abdul Wahab boobu gisee ci téere fiq yi moo xam téere yi saraari saala wala yeneen téere yi fiq yi ñuy wax ne diw nangam xaalawul xaaw bi xamal ne xaadu Abdul Wahab mu def nag alqaadi bi ñu ko waxee ci usul usul moom it ñoom am nañ ku ñuy wax alqaadi bi ñu ko waxee ñoom même shafii yoon yeeg xanafiye yeeg xanabila yeeg maliki yu yëpp itteem bu ñu alqaadi ci usul rek moom alqaadi albaqillani dañ ci jublu moom mu gaa yi tuddee woon cheikhu sunna wa lisaanul umma kaana ashariyan ala kulli xaal waaye teewul ñu ko fonkoon lañ fonkal la ci ci fànn ci fànn usul moom bu ñu alqaadi ci usul ci booyal moom lañ ci jublu kon alqaadi yaa ne ngoog ak muhammadaane ak ak ak ak ak acheykhaan kon day isnaad isnaadul dafa dafa dafa riwaaya ruya nettaleef na anna taalima sigaari ne naka jàngal ay gone li kitaabillahi téereb yàlla bii yutfi u day fay gadaballaahi merum yàlla nee na ñetti leef la ku gisoon maslakul jalaala wala masalikul jalaala bu abxari la wax ku ko wax waaye teewul saraay góorgóorlu nañu nee nañ lii am nañu ko askan leen sa sana waaye wérul moom ala kulli xaal lu xadis te am na ñu ne ali ibnu abi talib radiallahu anhu wa ardah moo ko wax athar la an saxaabi waaye du xadis marfu an nabi salallahu alayhi wa sallam borom fawaakihu dawaani an nafraa bi nee na ali ibn abi talib moo wax wax jooju ruwee yooyu kim tuddul arraawi mooy ali ci almariwi anhu boobu bil axra ki nettalee jële ci moom mooy ali ibn abi talib moo wax lii ibnu abi nag tudd ko moom dana nekk ci leef na ne jàngal gone yi téereb yàlla bii di alxuraan day fay merum yàlla wa anna taalima shay'in fi sigar netti leef na it ne wa anna ji yaa ngi ci ruwee ba tey lii def ko nette bi ibnu abi waxu nee na ñit jàngal xale dara ba muy gone jàngale dara ba ci ngone kan naqsh daa mel ni rëdd fil xajar daa mel ni bind jam fil ci aw xeer xeru tooy nga bind ci mu woowale ko nee na nee nañ sax jàngal jàngal gone xam-xam na xam-xam bay saxaye di dëgëre ca xol ba mi ngi nuroog xeer wala wala ban bu tooy ñu bind ci mu woowale ko doon doon aw xeer na muy ñàkk effacé ko kii ruuye la ruuye jaa moom lii ba tey ba tey waxuñ ku ko wax wala ba waxul moom ku ko wax ibnu abi zeyd donte chara yi góorgóorloo ci nañ ñoom it nee nañu nee nañ alxasan albasri moo ko indi nañ ko isnaad ba ci xasan donte borom xam-xam xadis yi ñenn topp nañ ko ne wéru ñenn ñi nee nañ xataada ne daami sulusi moo ko wax ñenn ñi nee nañ topp nañ ko wérul ala kulli xaal wax ji moom siiw na waaye wér na diwa ko wax foofu la ñuy discuter ñoom ci isnaad bi waaye maanaam yi moom li mu bëgg a wax mooy njàngale ci gone ci ngone dafa dëgër day sax loolu kay ñi mu ko weddi te lay sal xabaru kal mu ayna gis nañ ko maanaam gis nañ ñi jàng dara ci bi ñuy gone yow sax li nga mokkal ba ngay gone ñaaree boo ko kon ne di ko di ko di ko di ko nàmm di ko nemmee na muy saxee du bokk ak li nga mokkal li ngay mag loolu maanaam yi moom wér na ak ku ko mën ci wax ala kulli xaal nee na kon loolu ba tey lépp mi ngi ko wax rek ci di ko encouragé ci métier mi di jàngal ay gone mu ne waxat masaltu laka min dalika ma yantafiuuna insha allahu bi xifdihi ma yantafiuuna bi xifdihi insha allah nee na misaalal naa la tuddal naa la jëmmalal naa la masal misaal loolu lay firi indi la dara misaal ko ba nga mën cee teg bët da xam lim nuru nee na indil naa la ci misaal moo xam ne nii ay misaal yu baree baree baree bare yoo xam ne bu soobee yàlla soobee yàlla ci jëriñu wa yashrufuuna sax bi ilmihi al ilmu sharaf danañ amee tedd sax ci buñ ko xamee danañ jëriñu danañ ci teddee sharaf nag yaatu na sharaf xissi la sharaf maanawi la waaye ku ne xam ne ne xam-xam moom day jëriñ boroomam day jëriñ boroomam ak anam jëriñ bu mën ci doon waaye dana ci jëriñu waaye sa aduna danañ danañ danañ danañ danañ danañ texee bi itiqaadi yi ci fas gañ koy fas seeni xol wala amali bi ak jëfe gañ koy jëfe li ma leen di bindal nii insha allah sa gone yi li ma leen di bindal soobee yàlla buñ ko jàngee danañ ci jëriñu danañ ci amee honneur danañ ci amee bonheur danañ ci amee sharaf danañ ci amee saada ah loolu moom la dig gone yi koy jàng ba tey mi ngi bàyyeewul ci njàngaleem gone yi ba tey mi ngi mi ngi ñaax jëme jëme foofa ak di encourager sëriñ daara bi mu ne waxat jaa ñëw na sax rod na ba tey beneen beneen beneen beneen beneen beneen asar a ngi nii amagul nga ñett boo doon topp asar yi fi indi rot na ci moom bi moom xadis la ne an yu umaru nañ leen digal ñoom xale yi bi salaati ci julli li sabi siniina buñ amee juróom-ñaari at muruhum xadis la saa sallam nee na digal leen xale muruhum li salaati wahum abnaau sabin wadribuhum alayha wahum abnaau ashur wa farriqu baynahum fil madaaji moom xadis boobu la la indi xadis bi bëri na ay alfaaz ay riwaayaat waaye fi jumlati yi saxee xadis bu wér la am na akthar min tariq waaye xadis bu wér ñoom saa sallam nee na gone yi seen gone yi yéen julli ñi dee leen leen digal ñuy julli buñ amee juróom-ñaari at buñ amee fukki at dee leen leen dóor ci ci ñàkk julli dóor leen leen ngir ñu julli tàqale leen sax ci ay ci tërwaay ya muy xadis boo xam ne nii sharx ko bëri na ay détails xëy na détail bi du ko du ko attan waaye mu ruuxum jooje lay lay wax ku ne xam ne ne saa salaam ba mu ba mu wax ne digal leen xale yi moom digalul xale yi lu dul ci ñi ne al amru bil amri bi shay'i huwa amrun bi dalika shay am na ñu wax loolu waa usul foofu ñoom wax wax lu bari xale est-ce que danañ wax moom sharia dana wax ak xale direct wala day wax ak moom par intermédiaire ak bu waxee moom par intermédiaire diggal ko wala mu tere ko acte ban la am ba am maalik yu ñoom am nañ ci xaayida buleer leer boo xam ne ci la ñuy dox boroom boroom boroom boroom maraaqi na wal amru li sibyaani nadbuhu numi li ma rawahu min xadiisi xasaam pare ci nee na amru moom bu ñëwee jëm ci ay gone man duub la man du mooy luñ luñ sopp luñ ñaax jëmale ci maanaam du farata ñàkk ngay def defu leen ci duma buñ ko defee am tiyaaboo ñenn ñi ne déedéet ak sabiyu moom laa yatawajjahu ilay xitaab ndax rufi al qalamu an boole na ci ani xataa yaxtale gone ba ba ba muy mat ba la koy majoré gul waxuñoo ak moom ay kilifaam la ñuy waxal moo tax saasam waxul indil ma xale yi ma ne leen day leen julli bu ngeen amee juróom-ñaari at wala day leen bu ngeen amee fukki at nañ leen dóor bu ngeen julli dana digal leen leen ñi moom digal mooy waajur yi ñoom ay mukallafu na lañ al amru bi shay al amru bil amri bi shay hal huwa amrun bi dalika shay am la loolu masala la walaysa man amara bil amri amara li thalithin illa kama fi ibni omar alaxira walaysa man amara bil amri amara li taalif illa kama fi ibni omar xam ne misaal ma la jublu nee na boo digalee nit ne ko neel nit nangam man laa waxal nangam nangam man waxuma nangam moom yow laa waxal léegi moom moom ci yow lay dellu yow nga dellu ci man kon fii xale yi la yenn saa salaam wax nañ leen digal waaye saa salaam xale yi parents xale yi la digal moom yi xale yi digal ne digal gi nag digalu nag bu la ba tey borom xam-xam yi ne nañ gis nañ ci alaamat ndax al amru newul ne fu amru ñëwee rek lil wujub al amru moom al aslu fii gaa mooy annahu lil wujub lakin axyanan taxtaf bihi qara'in muayyana tasrifuhu an al wujubi ila al najbi axyanan ila al istihbab wa axyanan ila al ibaha xatta amru in saa sallam bu diglee wala yàlla digle lii cosaan mooy farata la def yeyoo tiyaaboo ñàkk a def yeyoo duma waaye léeg-léeg ndigal dana ñëw am ay contexte yu ko wër am yu mu àndal yoo xam ne mooy tax ñoo xam ne ndigal li ndigalu soññ la ak luñ sopp waaye du ndigalu force am na borom xam-xamu sharaa yépp nee nañ ndigal li fii ndigalu nattu la loolu ña ngi koy layeele ay lay yu bari yoo xam ne daanaka jotaay bi du xaj du xaj ci jotaay bu ñu bu ñu tudd ko nee na rod na ne nañ digal xale yi ñu julli te ñoom booba juróom ñaari at nañ am ñu ne moom buñ ca tàbbee rek xam-xam yi bëgg borom chara yi nga xam dañoo mën a détaillé nee nañ waaw ndax buy dugg ca juróom-ñaari at ya rek lañ ko ko war a diggal wala bu demee ba ca digg ba wala bu demee ba lekk juróom-ñaari at ba mu jeex tag boo amee juróom benn at jeex ba ca su ba ba mu xëy di dugg ci juróom-ñaareele rek xaalis bi ñëw daanu na ci kaw buy dugg ci juróom-ñaareel laa diggal nga diggal ko moom xale bi muy julli julli la wax waxul beneen jaamu yàlla yi woor a ngi ci yeneen a ngi ci waaye julli bi xaddi zaatiha la tudd loolu ku ne xam na ne yomb naa yomb naa firi lu tax mu tarkiis ci julli ne nañ ko digal xale yi bàyyi leneen lu julli loolu ba xam-xam yeeg ñiy tekki xadis bi wax nañ ci yu baree baree baree bare ba ca ëpp solo wala ñaar yi ca ëpp solo boog sax buñ jëlul lépp mooy ba cee jëkk moom mooy am solo gu julli am solo julli moom ku ne xam ne ne mooy rasul amri al ahdu alladi baynana wa baynahum salaa julli moom salaa sallam muy xar-xarle sax moom la doon moom la doon dénkaane as-salaa wa ma malakat aymaanukum julli moom moom moom moom magum jëmm la ci ci ji mu salaa alayhi wa sallam moom la mu jëdénkaane nee nañ kon looloo tax saa ne digal leen ko xale yi sax bu ñu amee juróom-ñaari bi nga xam ne majeur bu ñu sax ne nañ leen koy digal benn kon lu ci jëkk mooy am solo bu julli am solo ñaareel ba bëgg ñu tàmm ko ndax dafa bari lu muy gaar ci bis bi loolu ko xaw a diisal daalaat ak tàmm lu muy def juróomi yoon gën jaa néew ci bis bi bokkut ak koor nga xam ne at mi yëpp beneen la ko ciy def bu dee farata ji bokkut ak aj maak nga xam ne dundam gépp su ko mënee benn yoon la ko ciy def bokkut ak yeneen bokkut ak yeneen ci ko war di def su demee congé da ko yoon loolu nag li muy tajaddut li muy li mu koy def di ko defaat di ko defaat day tax mu diis ci moom ñu dimbalee ko nag tàmmal ko ko bi muy gone mu màggale juróom-ñaari at nee bu ñu ba fukk sax moom dóor leen leen buñ julliwul kon dóor yi sax borom xam-xam yi wax nañ ci wax nañ ci attey dóor yi lan la ak kañ lañ koy dóor ak nuñ koy dóoree fuñ koy dóor ñaata loolu lépp ñoom dañoo mën a tafsil tafsil nañ ci ay tafsilaat yu baree bari li ñu ci intéressé mooy dóor gi xale bi bu amee fukki at da koy dóor mooy soo yaakaaree ne dóor gi nga koy dóor dóor wooyof du ko dul gaañ du ko laggal du bàyyi benn jeexital ci yaramam wi ñenn ñi nee nañ ashab maliki la ci ponkal yi la boobu nee na ñetti yar sax bu ko waaj moom waajur wi nañ ko dóor moom moom muy dóoree nee na kenn warta weesu ñetti ñetti ñetti yar ngir mi am nañu ne ñaar fukk am nañu dóoree bu bu bu bàyyi jeexital moom darban xayra mu bare ndax yenn saxaaba yi nañ ko dóor bu dóor bu dóor bu dóor bu bàyyiwul jeexital te bala ngaa dóor charte la na fekk ne dóor gi mooy li ko mën a tax a julli am na fukki at boo ko dóor rek du julli mu tulaxan nga dóor ko dóor yoo xam ne du ko gaañ ba mu weesu ñetteer bu dóor yi métti ndax dóor wasila la wasila mooy lan moyen la jumtukaay la dañ cee dóor gi taxul taxul taxul ñoo jóg xale bi julli moo ñu tax a jóg kon doo tëb rek di dóor digle moom da ngay tëb rek di digle donte xadis bi ñaari baar yi ñoo ñoo ñoo bokk terme yu ñu leen waxee waaye boo jàng boo boo boo boo boo jëfandikoo sam xel xam ne digle bi moom amul kii digle rek moom waaye dóor yi moom faj la saafara la daa bañ a julli ma yaakaar ne mu not ci sama yaakaar ne su ma ko dóoree dóor yu woyof dana julli ma dóor ko dóor woyof mu julli moo tax borom ñoom ñëpp sara yëpp am nañ ci ne doo dóor lu dul da yaakaar ne bu dóorul du julli loolu am solo la ñu ko bidundihaa sax te tamayyuzul ashyaa'u nee nañ sax bu fekkee ne jàpp nga ne boo dóoree du soppeeku boo dóoree am nga daan bi tey mi ngi wax am solo bu yar xale am am solo lii wax dëgg fii fii ibnu Zayd ibnu Abi Zayd toll ci muqaddima bi waroon nañ ko leeral wisaare ko bind ko traduire ko jox ko ñuy wooye droit d'enfant ak seen kon xam ne islam ak borom xam-xam yi lislaam yi ak fuur yi ni yittewoo gone ak bañ koo boyal rek toppatoo lislaam ba mu yittewoo di yittewoo ay droit di yittewoo la baax ci moom di ñaax di soññi jëme ca booba ñoom waxaguñ gis nga ibnu abi zayd mi bokk ci kàngami ngir mi ni mu sonnee ci di xoolal fa tàmbalee di neexal ak di encourager sëñ daara bi gone yi di apprécier bu baax a baax sàkku gi mu sàkku ci moom mu taalifal ko loo xam ne nii njariñ yi ci gone ne lay dellu di ko wan ne ko nit deful lu gën li ngay def loolu daal di ko di ko dëgëral nag amul ci wax ko ko rek ñu ko waaw rot na sax yéen ci yéen saa salaam yi ne xale yittewoo xale nañ koy nañ sonn ci teel koo teg ci yoon bu baax muruhum bi salaateeg durbuhum alayha farriqu baynahum fil madaaji loolu lépp rek liñ ciy déggee mooy ne yittewool xale bi sonnal ci moom pour teg ko ci yoon ba muy gone nga xam ne nii ak jariñoom ci société bi ak jariñoom société bi après day yomb kuñ teg ci yoon ba muy ba ngay gone mag boo bànkee mën nañoo bañ a am ci yow lu ñu naqari wa yufarraqu baynahum fil madaaj kon mu ngoog nañ leen dóor bu ñu amee fukki at bu te nanguwuñoo julli te dóor yu woyof ya dong mooy tee ñu julli mooy tax ñu julli wa yufarraqu nañ tàqale baynahum seen biir fil madaaj ci tëdduwaay ya foofu waxaa fi détaillé fi ñan lay waxal gone yu góor yi ak gone yu jigéen yi buñ amee fukki at ak sax de lu jiitu loolu sax kay wa farriqu baynahum fil madaaji ndax buñ amee juróom-ñaari at la wala buñ amee fukki at ndax moom saasam dane muruhum bi salaati wa hum abnaau saba wadribuhum alayha wa hum abnaau ashra wa farriqu baynahum fil madaaji mu mujj digal leen leen ñu julli buñ amee juróom-ñaari dóor leen leen ci ñàkk julli ga dóor yu leen dul lor bu ñu amee fukki at te ngeen tàqale leen ca tëriñ ya kañ lañ leen tàqale tëriñ ya bu ñu amee yuroom ñaareel wala bu ñu amee fukki at ñu ne lii zahiru xadis bi moom li gën a jamtalu gën a direct mooy fukki at yaa tax muy wax ndax ca la ko tofal mu ca sës wax la la la mu gën a jegee bu xëccoo amee loolaa ko moom tey boo boo booy jàng naxwu bu jumla ji ñëwee damir ñëw jamtalu feneen fu mën a dellu fu baree baree bari dañuy wax ne ab dominante ila aqrabi madkur qaida kon lii mislu moo tax borom saraaya yëpp dañ ne li mu bëgg a wax mooy bu ñu amee fukki at nañ tàqalee gone yi ci seen tëdduwaay la nu ñu leen di tàqalee ak ñan lañuy ñuy tàqale tafsil ci boroom Samarud Daani abi la xam ngeen ko abi nee na moom la farqa fi dalika bayna al inaasi wa dukuur moom mabaaje ya tërwaaye ma ngi ci jublu ñu bokk lal nee na boo ko mënee sax ñaari gone yu góor yi sax bu ñu amee fukki at buñ bokk lal wala buñ bokk mbalaan ñoom dana farriqu baynahum fil mabaaje buñ bokk mbalaan nee bu fekkee ne bokk nañ lal te bokkuñ mbalaan bu dee ay góor lañ aayul bu dee jigéen la aay na moom dafa détaillé al euh, amiru sanaani borom subulu salaam moom nee na tàqale gi ci lal bi la buñ bokk barab bi ñuy tëdd bu dee góor ak jigéen lañ buñ amee fukki at buñ bokk benn lal bu ñuy tëdd donte ñoo bokk ndey ak baay ku ne xam ne ne lam ci jublu mooy ñi ñi ñi ñi ñi ci kër gi te te bokkul lépp nañ leen teel a tàqale ci tëruwaaya ndax bañ leen a miinal jaxasoo góor ak jigéen fukki at donte ngir mi bil munasaba ngiru Maalik am na ci wax juñ askanale Ibnul Qaasim nee na buñ itgaaree gaar mooy buñ foqee foq defe naa laa ko mën a wax buñ foqee rek buñ bokk ci lal góor ak jigéen donc te texte bi moom nee buñ amee fukki ak buñ bokk ci benn lal bi ñi firee mabaajee lu xat ba nga xam ne ñoom dañ cee jublu ne mooy ñu bokk mbalaan mu ñuy sàngoo ñoom nee nañ bu dee loolu lañ koy firee góor ak jigéen lañ ci yemale ñaari góor yi buñ bokk mbalaan mu ñu sangoo bu ñu amee fukki at seen yaram yi di jonjoo ñoom ñaari jigéen ñi buñ bokk benn mbalaat bu ñu sangoo seen yaram yi di jonjoo bu dee am nañ fukki at min baa bi awlaa nag rawatina bu dee góor ak jigéen la donte ñoo bokk ndey ak baay loolu ñàkk xale bi la ak aar ko ak jàngal ko mu civilisé ba jaxasoo góor ak jigéen boo xam ne nii leneen mën na caa am du ko miin mu teel koo mu teel a xam ne moom xàmmee na ne kii bokkut ak moom euh, jins am na fu mu war a mën a yem ak moom borom xam-xam yi tax détaillé nañ foofu ne sax boobaa dañuy dañuy dañ koy tere sax ñi ñuy tafsil ci sara yi buy sol yéreem ndeyam ak baayam di ko gis bu amee fukki at sip nañ nee nañ te day fekk dañ ko ci gis sib nañ bu amee fukki at yooyu fi farat beneen mu masaaj yi dugal nañ ci masala yu baree bare bare baree bare sib nañ bu xasee ba am fukki at buy solo ci yére nga di ko gis may ko liberté tuuti ak bu bu boo xamee day simee ko génn bàyyi ko wala nga muur ko wala nga fexe ba ak di ko sang loolu moom waxi noppi ci biiri nit fukki at moom daal nañu xam ne war nañ koo utal tuuti indépendance ci lu aju ci wàllu yaramam loolu chara yi détaillé nañ ci loolu ab yar la éducation la boo xam ne day sàmm xale bi da koy aar ba du ba du inxiraaf ba du ba du ba du ba du ba jàdd ba du tàmm yenn comportement wala yenn doxalin yoo xam ne nii mën naa dem ba nekk mag sax muy jeexital ci moom di def ci moom jikkooy safaan te loolu am na bëri na feebar yu nit di feebar bu nekkee mag ñu jàng wàllu tarbiya ak ilmu nafs jàng psychologie dañuy wax ne da koy tàmm ba mu nekkee gone yenn comportement yu tàmm jaxasoo benn beeg benn sàggante bi ñuy sàggante ci xale bi ci yenn domaines yu xóot yi day tax ba mu tàmm yenn yi su màggee du aayal yu baree baree baree bare da ko war a aayal gis ne lislaam kon mi ngi teel a yar gone yi leen teel a teg ci yoon fa kadalika yanbagi an yaalamu ma farada allahu ala alibaadi min qawlin wa amalin qabla buluuxihim mu nga fay tarbiya la ak taalim ñoo ànd ñu gis ne kon yar gis nga lii yar la ndax jàngal leen ñu julli di leen ci soññ di leen ci ñaax waaye ñu topp na ñuy tëddee loolu éducation la moo tax xam ne xadis bi nag ciy déggee ne tarbiya ak taalim kullun laa yatajazza ab lumb bu dul tàqaliko la jàngale ak yar ñoo ànd boo leen tàqali boo leen tàqalee rek indi jafe-jafe ci biir jàng mi ci nga koy yaraale muy bi moom daf koo boole lépp leen li jàngale la ndax jàngal ko ni muy jullee digal ko ni muy jullee am jàngale la waaye di toppatoo ab tëram ab ab ab tëraayam na muy na muy tëddee loolu yar la ñoom ñaar ñoo ànd mu ne ndax ni ki noonu lañ niñ xamee yooyu war ko yittewoo ni ki noonu yambaxi yell na an yaalamu maa farada ñu xam li faratal allahu yàlla alal ibaada ci jaam ñi min qawlin moo xam ay wax la loolu waxoon na ko lu waxoon na lu ko nuru wa amalin ak jëf qabla buluuxihim laata ñuy majeur laataa ñuy mat laataa ñuy doon mukallaf li yatiyee ngir mu ñëw albuluuxu mat ga alayhim ci ñoom waxat te tamakkana jàppandi na daalika loolu min xulubihim ci seen xol ya ñu ne bu ñu ñoom fii bu ñuy mat di nekk majeur di nekk ay mukallafoon day fekk yu baax yii ñu leen doon jàngal jàppandi na ci seen xol yi ba def ko daleen di yomb leen mas a jëfee julli nga xam ne waxtu juróom yëpp lañ ko war di def foofu borom xam yi nee nañ ni ñu waxee julli ne lañ waxee taban shurutiya ndax ku ne xam ne ne al bi shay'i amrun bi ma laa yatimmu dalika shay'u illa bihi bu ñu ne nga digal xale yi ñu julli mooy nañ leen digal wala ñu julli ñu ñu jàpp ndax ñoo ànd tudd ko waaye yaa koy xam xel koy mottali lu ami charte ku ko digle digle waale nga charte ya doon te tuddoo charte ya duut ko baaraam loolu règlement la ci usul ndax doo digle lu baaxul doo digle ñu defee jëf ji anam gu matut julli leen xam nga ni charte julli moom bokk na ci day jàpp day day day laab day jublu penku day def nangam ak ki nangam kon yooyu duggaale na ca biir kon defe naa war nañu mën a yem foofu ñu ngi doon dund li ya'ti alayhimul buluugh hatta tamakkan daal wa sakanat ilayhi anfusuhum seeni bakkan dal ci bima yaamaluuna bihi min dalika jawaarixuhum wa arisat kon wettiliku na miin na jawaarixuhum seeni cër bima yaamaluuna ci li ñuy def bihi min dalika seen fekk seeni cër miin na miin na làggi na ci jëf yu baax yi nga xam ne moom ngeen leen jàngal ba ñuy gone nañ nañ yem foofu ba eggale ko hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin Fafa TV